munti nekk si biir Sénégal ñépp ñoo leen di teewlu ah Tawfekh mbokk yi mooy assurer seen visibilité Tawfekh production le leader dans ah, a may. gën ñoo gàtt ñoo Tawfekh sëriñ bi. jabootoog sëñ soxna may mi toog doomi gaynde la doomi gaynde nag faw mën a fadd nuyu naa ko léegi ne ko ca suba. ci yow lan ne nettali bi rafet na lool wala Cheikh Abdoulaye Lahat ko muy sa waajur sëñ Saliou Mbacké di sa waajur sëñ Souhaïbou bu di sa waajur sëñ Fallou di sa waajur nga taxaw taxaw taxawaay bu toll ni taxawaay bii nga taxaw Touba góor yàlla gii li muy doon doon gone jomam ak yitteem di alxuraan sëñ ma sëñ Maxtaar Jenn mu jël bis bu toll nii jéggi ñëpp tudde ko juumul sëñ Maxtaar nag lii defu ko dañ ko koo defal man xàmmee naa kun fàggul ak kuy fàggu kuy fàggu bala nga am la fàggu sa kawar gu weex day ëpp sa gu ñuul wala kun fàggul nag da ngay ci fàggu am lan la fàggul lii nga def gone mënu ko Tuubaa yaatu na te ñuy gën ci àdduna fii la dëkk alxuraan fii la dëkk wala ndam lii nga am gone daawu baaxi maam baaxi waajur baaxuk dox kaar-kaar am xam-xam baaxum xel am jom moo may lii tey damay wax ni deel bàkk jàmbaar yi ngir yambar yi bàkku jàmbaar bu yameeg bàkku yambar bu yàggee jàmbaar taayel ku ko def dee leen ko wax ku ko deful maalu leen soxna ma yàlla fi yàgg téwér barakallah jërëjëf ñu ànd kaddu yi eh, eh, sëñ xaadi bismillah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 ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu xaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal di jiital ci ñaan yooyu saaxibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Muhammadul Muntaqa ñaan suñu borom yokk aw fanam akuk wéram gën koo kàttanal ba liggéeyu lislaam bi ci loxoom bépp mu yóbbu ko fu kawe njort yi te ànd ko moom ci barkeb sëriñ bi di nuyoo ci turu soxna Maymunatu bintu Cheikh Abdul Ahad di tàmbalee nuyoo bi ci Serigne Makhtar Diène mi nga xam ne mooy borom barab bii waaye di ko jàllale ci mbokk yi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ñu am taxawaay bu am solo boo xam ne moo jur résultat yii waaye di nuyu way juru donga yi ak dëkkandoo yi ak dongo yi seen bopp nga xam ne ñoo moom bis bi soxna si neena ci turu délégation bi mu àndal te bañ mu nekk barab bi di barabu dal di barabu alquran bañ mu soppi xumbeen moo tax waaye bi sëriñ maxtaar jëlee liggéey bu toll nii eh, tuddee ko ko dara jaale ko ko nee na xamul yëg-yëg bu sëriñ maxtar am ba def ko waaye moom day yëg-yëgam yéesul benn yëg-yëg ndax dafa jàpp ne loolu sëriñ maxtar def daf ko séen ca yoon wa rekk naan ko bàjjen walla maam góor góorlu nga ndax ku ne xam na ne bisub alquran bisub xam-xam kenn du ko tudde n'importe kii moo tax kon nee na yëg na loolu bu baax yëg na ko ci xolam yëg na ko ci xelam fas na ci barkeb way juram wa ak sëriñ bi ñuy liggéeyal suñu borom may la ndam ci liggéey bii te ndam li mooy ndamal lislaam ndax ku ne xam na ne ni ñu ko waxee léegi complexe walla mu jàmma tàmbalee ca daara ja jaar ci cycle primaire yi ba ni muy jeexale cycle primaire yi dugg ci formation professionnelle loolu dara gënu koo am solo te dafa mel ni complexe bi loolu la dajale kon loolu di liggéey bu rëy rëy kon soxna si bi muy ñëw mu ngi ànd ak soxna mbenn jaxate doomam soxna moom yi buso soxna maam Boussa Touré mu sëriñ Saalixu ture yàlla na suñ borom dolli ay leeram moom it doonoon jàmbaar ci xam-xam waaye soxna ay Gaye mi ngeen xam ci dëkk bi moom it bëgg lu baax lool ak soxna may a Maroon waaye it ànd ak euh, sëriñ Saalix moom sëriñ Siidi nga xam ne soxna si amul dara lu muy def lu dul ne diisoo na ci ak sëriñ Siidi muy kilifaam ba noppi waaye ànd ak njaboo tamit sëriñ saalihu jaxate sëriñ abo jaxate sëriñ xaadim ak sëriñ abdul quduus mu sëriñ seexuna mu sëriñ abdul ahad waaye sëriñ seexuna gay mu cheikh abdul ahad ànd ak euh, sëriñ ousmane mbaw ak sëriñ lamin mbuub daanaka bëggutoon a bàyyi kenn ngir yëg-yëg boobu mu am nee na xam na ne sëñ Muxtaar ñii mu tudd su ci yebaloon kenn xam na ne dana doy ci yow koy doo ko xeeb waaye wan la ne la yëg na ko moo tax mu dajale mbooloo moo xam ne kenn ku ci ne mën naa jiitab délégation ñoom ñëpp mu boole leen ñi benn délégation nee na daa bëgg a wane ne yëg ne lu rëy lii ñu ko tudde kon mu ne mi ngi sant bu baax tey ñaan waaye it di soññee di soññee mooy nee na lii dafa doon loo xam ne liggéey bu rëy la ngir lu bokkut ak fàggu gi nga ciy fàggu aw yiw mooy di jàngal doomi jullit yi waaye danga nga ci damm làmmiñu ñi nga xam ne dañoo tubéyul daara ak diine lislaam ndax tey jii ci biir réew mi bari na ñoo xam ne dëgg la gëm nañu yàlla waaye wóolu ga ca war jàpp nañu ne ku dem ci daara mooy boo fa jógee xëy na imaam ngay man wala tuddoom wala nangam waaye doo am qualification wala sax doo am insertion mu ne nag taxawaay bii moom dafay combattre loolu dafay weddi loolu ndax fu ñuy jànge alquran ba mokkal ko ànd akub majalis ñu defa jàng xam-xami diine ba mat fa imaam waaye jël cycle primaire ci enseignement moderne ba ba ngay dem bac ubbi formation professionnelle kon yaakaar naa ne qualification ak ak insertion dootul problème kon loolu nee na lu ama am solo la loo xam ne mi ngi la ciy encouragé bu baax a baax a baax a baax tey ñaan suñu borom mu baril say kem ndax kon su boobaa ñi jàpp ne ñu génne ci daara amuñu fuñ jëm wala jullit yi nga xam ne dëgg la naam bëgg nañu alxuraan waaye suñu yóbboo seeni doom ci daara bu ëllëgee seen insertion nee na yow lii ngay def dafay weddi loolu kon jërëjëf soxna saa ngi sant bu baax a baax a baax di sa di soññ nag xale yi ñu xam liñ am ndax nag gone gu juddu toll ci jàng ñu di ko yóbbu daara mu am tawfiixi dajeeg daara ju mel nii war naa sant da daq na lool daara yi ñu doon jànge ñun kon nag nee na ku am loolu war a góorgóorlu ngeen def yitte ba mbooleem fu ñuy def ab joŋante ci xam-xam ngeen man faa teew te jëlee fa ndam indi ko dollil ko sëriñ bi ci ndam yi muy am ci côté ci côté complexe scolaire bi wala kër soxna awaloo it kasaalika euh, góor góorgóorlu gi nga xam ne góorgóorlu gi nga xam ne euh, Serigne Makhtar mi ngi koy def waxtu wu nekk pour améliorer conditions yi nee na loolu it mu ngi ciy soññ gone yi bu baax ñu xam ko te ñoom it yokk seen ngóora ndaxit am na seen moroom yuy jàng ci ay conditions yu gën a doy lool. tey am résultat kon suñu amee su ngeen amee condition yu mel nii war ngeen a fexe yéen i def seen ngóora ba euh, résultat yi ngeen di am méngoo ak condition yi ñu leen mettre di soññ way jur yi ci taxawaay bi xam ne ku am doom yàlla dogal ngay joxe daje koo xam ne daa mel ne moo la ko gën a bëgg loole it ngeen góor góorlu ca accompagner ko bu baax a baax taxawu njaboot gi saa bu ñu jógee ci jàngukaay ba dellu ci kër yi ngeen bañ leen a bàyyee portable yi ak écran yi lu jàngalekat yi doo def ci bopp yi lavage de cerveau appareil yi fanaane koo dindi soxna si nee na loolu kenn ku nekk nag yaa ciy nekk maître ci sa kër wuutu fa jàngalekat yi jàpp na ne bu effort yooyu yëpp àndandoo ni ko sëñ Muxtaar defe jàngalekat yi defe ko élèves yi di góorgóorlu way jur yi di góorgóorlu incha allahu taala résultat moom meilleur rek la ñuy dégg donte li ñu dégg meilleur la parce que suñu delloo ci résultat national yi ñu am defe naa c'est moins de cinquante pour cent fii nii résultat yi ñu fi am tiim na soixante soixante dix pour cent ci ni ma ko dégg léegi kon ngóoraa ngi feeñ waaye xam na ne euh, euh, li ñuy wax saatu ñaw du tey ñu daggi ko kon soññe bii da koy def ngir moom mooy waru garam waaye xam na ne yéen a ngi ciy góorgóorlu euh, naka noonu bokk na ci délégation bi sëriñ Moustapha mu sëriñ basiiru mu sëriñ Abdul Ahad ni ma waxoon rek soxna si moom yëf yi da cee am yéene ba nga xam ne eh, bëggutoon a bàyyi kenn fenn waaye mu ne it barab mel noonu am na nu nga fa yóbboo mbooloo yi day mel ne leneen la kon daa nekkoon ci diggante boobu waaye lépp rek day feeñal yéeneem kon sëriñ Maxtaar sëriñ baa ngi sant bu baax soxna saa ngi sant bu baax di la ñaanal tawfiix ak ndamak ak ndimbal akuk dolliku ba lii bañ a mat asaka ci résultat yi nga war a ami te di ko ñaanal ñu nekk ci waar wi yëpp di jégglu bu baax a baax a baax xanaa ku dem ci ab jataay dajee fa ak say say nijaay mbaa sa maam mu noggatu la rek <laughs> soxna si maam la moo tax ah ñi mu àndal ay nijaay lañ kon moom de de su ci am taxe waaye xam nañ ne ñoom buñ ko jotli woon dana gën a jot lool asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Eh, barakallah eh, sëñ Xaadi Jaxate eh, tabarakallah kaddu yi matale na bu baax a baax a baax a baax kon Serigne Makhtar ah Cheikh bi Cheikh mu ngi noonu yàlla barkeel yàlla mottali kon tabarakallah ñaari ànd ak rek Cheikh Cheikh bismillah kon bala ñoo jot li kàddu yi rek ñu ñu ñu ñaan soxna maam say mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadal mu ànd ak soxna si taxaw nii rek nangul lu ñuy loo xam daa jëmoon ci soxna si mu joxal ñu ko teppi taxawal bam taxawal bam bàyyil taxawal taxawal taxawal Seydou taxawal xamu nu mu mel. Eh, barakallah kon nu mel ni ay teraanga yu am solo. da ngeen di may sax eh, eh, barakallah mooy. xaw xaw leen kees yooyu ngeen gis ak. machine boobu nga xam ni machine ordinateur la waaye ànd ak unité centrale waaye ay paquet yoo xam ni yëpp dafa def ay rame de papier loolu lépp daal nekk jumtukaay yoo xam ni duñ ko soo ci daara mu nekk ay teraanga yu am solo xam ni soxna si indi na ko ci daara ji tabarakallah waaye nag ñu ànd ak Cheikh Matar Dieng moom it tabarakallah am na lu mu waajal benn kado boo xam ni daf ko bëgg a soxna si xam naa rek bu fekkee mën a yaatal ba mu yaatu ndax bëgg euh, nañ euh, caméraman yi mën koo jël ah, su ko defee rek ku nekk mën koo gis tabarakallah mën ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax euh, mi ngi noonu muy photo Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Eh, nekkoon jàmbaari lislaam waaye tabaarakalla eh, nekkoon waajuram eh, tabaarakalla kon soxna Maam Say mu Sëriñ Fallu tabaarakalla moo mu nekk lu am solo lu mat a bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax waa daara tabaarakalla ñoo daje ñoo joxante ay teraanga yàlla barkeel kon soxna May tabaarakalla sëñ bi moo la jox photo boobu nga xam ni tabarakallah mooy foto Cheikh Abdou Lahad kon sëñ bi bisimilah. yëkkati ko. waaw ah, ma jóg ma jóg. barakallah xam naa kon. tabarakallah. Eh, tabarakallah eh, eh, mu ngi noonu. tey waaw tey ngeen amul moom tey moom tey looloo am tey takbiir tabaraka la ñu ngi noonu yal na yàlla waaw ñu di arrière tuuti rek ñu mën a jël image yi ndax ñu nekk ci ginnaaw tabaraka la ci caméra rek la ñu a seetaane kon ñu di delluwaat suñu place